برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان وعيد غروب شمسه وابتدت وعجب هذا أمياه تبتلت أمريكا وصلت الفرحة قد أبرأ الكف من ترب تبيد على النار الفتنة غراء تستأصل الطرف يرجو صلى الله عليه وسلم ما يصفي باي يرجو صلى الله عليه وسلم ما يتجي باي يرجو صلى الله عليه وسلم kenn du ko gën waaye yoo xam ne moom xam-xam yi xam nga dinañ ci péeb yàlla ba fekk yoon yàlla Moussa dañ ko waxoon ne ko ba mu demee ci bi ne ko innaka bil waadil muqaddas tuwaa su mi sa daal yow Moussa parce que yaa ngi ci péeb yàlla bi Moussa soo yonent bi nag bi nga xamee ne yàlla rañaan nee na ba mu dem baraas te ko te xaral ba mu fàttaliku la ñu waxoon Moussa ne ko summil sa daal yaa ngi ci pay bi mu bugg a summi daal la ne ko yow sa daal yi doo ko summi dox doxal moom fii yow yaa fi xam ne lépp luñ bind rek lu ma bind rek yaa tax ma bind ko ونقول لقد وطئ الارض المجيده فقهقرت بعيد غروب شمسه وبتت صحوا ينتبي سيدنا علي بن ابي طالب ربنا خلينا من خيبر تيرد بنا كن جل لما يخبر تيرد بنا ñu gaaw dem gañal Seydina Ali toog ba ba jant bi jant bi di waaje soo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ba nga xam ne Aliou dana jóor joox waxtoom wa parce que li ma ko yónni moo mu bàyyi ko kon loolu mooy li yonent bi dafa dalante nit ki soo ko bëggee da koy bëgg rek ci lépp koy bëgg bu gënal sa bopp sa ndey sa baay sa dund sa dee sa aljanna sa safara lépp yonent bi la bëgg la kon bu toogee fii tey ci pays bàyyi des ba di fàttali ko bàyyi di xool ni mu daan toogee nii ni mu daan waxee fii ni mu daan takkee yonent bi fii ni mu daan jooloo nit ñi fii ku ko fàttali ko tey dana xam ne bàyyi kenn du bàyyi te bàyyi naan maa ngi leen di xamal kenn du doon bàyyi Ibrahima moom yaa benn may la woon yàlla joxe na ko bàyyi jël na ko jeex na mën na leen moo gën lu baax nekk ay taalibe bàyyi nekk ay jaamu yàlla nekk ay xaarit billah yàlla xam ko moo gën a yomb bu xam dox wallaahi billaahi tallaahi xam yàlla moo gën a yomb buuxam ndox ak ndox ne fu moo ne ci lu ne kon boo ràmbee yàlla nga tëj boo xoolee yàlla nga gis boo yëngatoo yàlla boo dalee yàlla kon yàlla ba koy def sant ci sa bopp la lay yëpp yow des kenn kon mbokk yi tey ba kii ci la affaire bi soqee koo woon dem Kossy jógee Kossy dem Kaolack bu ñu jógee Kaolack nag dafa saaroo ci àddina bi yëpp kon nañ góorgóorlu bu baax a baax li indi nañu ko ci ay maarif ay adduwaak ak lépp loo xam ne dañuy gën a jege la suñu borom mbokk yi góorgóorlu bu baax ci loolu yal ci yàlla xiir yàlla xamal ñu boppam yàlla mooy xamal xamle boppam damaa toog na noor soot sama benn rakk bu jigéen ñëw naa baaba man damaa bëgg a xam yàlla mu ne ko dëgg la ci yow mu ne waaw mu ne ko waxal laa ilaaha illallaah mu wax laa ilaaha illallaah daal di ko yàlla rek mooy yàlla toog naa nit muy mu di ma xool ma ne ko la may xoolee mu ne ma bëgg la rek ma ne ko bëggal yàlla ndax yàlla mooy ki nga xam ne soo ko bëggee mu nekk ni yow man mënumaa def soo ko mënumaa def kenn loolu kon boo koy bëgg bëggal yàlla ndax yàlla mooy ki nga xam ne mu ngi mu ngi fu mu ngi ci lu ne te kenn mënta doxal yàlla ndax yàlla fa mu ne te nekkam nga ci biir nekk yàlla foo foo ne moom rek moo fa am aar ku ba du an war a fa fa xalaqtu xalqan te araftu bihim fa bii bii yaarafuuni xam nga bii boo ko seetloo fukki araf arafam ñett Baye Ndiaye taaram la tey tey ba yii ku bëgg a xam yàlla occasion de la mbir mi dem indi nañ ko de pour seen kanam jeex leen ci yàlla des leen ci yàlla dugg leen ci yàlla doy leen ci yàlla